salaamaaleykum wa rahmatulah dal leen ak jàmm fii si seen internet Tafissi Wala 221 TV moo nekk si kàddu gi lii nag mi ngi xëy fële si Touba dëkk bu sell ba sa marché Ocass biig si guddi ay boore 22h jàpp 23h dafa doon euh, tàkk tàkk tàkk bu métti métti sax moom ngeen gis nii ñu leen koy wan nii waaw mais nag dañuy sant yàlla dañuy sant yàlla bu baax a baax a baax ndax yàlla xam naa li mu def nag dafa gën. waye nak da ci am lo xamanteni nak da dafay metti lol sax ci ñame dal donte nak dañ ci ànd ak gëm yalla na boo xol li nekut bi ma la première fois bi ma ñaarel yoon sax waaw ta te diggante yu kat lay doon dañu jé rek wala dañu jënté rek ma ngay amé won ci même marché occas bi ta boo xol li say tak rek du tak tak ba ko mën tak tak tàkk ndaw lay doon kon nak war ñu taxaw nak ñu sel ba xam lan mooy waral tak tak yoolee naka naka ak le dal ba sama bi ni ma leen wan ni sax ci biir ma ci moy bu 2021 ba ba semaine taxa sa taxawon ci ay million mel ko jappale ko ñi nga xam ci ñi ñoo ci lakal ak ñoo ci ñàkkale tu dal leen ko dimbalee en tout cas dal métti na lool ñu leen ma saw bu baax a baax a baax di leen dig jëre si beneen vidéo abonnez-vous activez cloche de notification de fisco 221 jaa ngeen jëf